والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته comme niñ ko baaxoo def ci samedi bu nekk ci waxtu wi ñuy jégglu ci tardement bi ñoo ngi jël tey ñaari aaya ci suratul baqara 246 247 ñaari aaya yi nekk sunu kanam borom bi subhanahu wa taala ginnaaw ba mu farataalee ci jullit ñi jihaad te mooy xeex borom bi mi ngi jàjj sahabatul kiram ca keroog la xewoon badr di bëgg jullit ñi bàyyi xel ne jihaad xeex ci yoonu yàlla foog ñetti mbir taxaw la budda min al mali wa rijal al abtal as sujaan xeex ci yoonu yàlla il fallait que alal ñëw kon jullit ñi foog ñu nangu di génne seen alal waaye foog ñu am ar rijaal ay góor ay góor yoo xam ne al abtaal ay jàmbaar lañ ba pare assujaan dañoo ñeme kon jihaad ñett yi foog mu ciy nekk borom bi subhaanahu wa taala di wan sahabatul kiram benn mbooloo bu amoon ci jamono ginnaaw Muusa alayhi salaam bokk ci banu Israil sàkk woon ci seen benn yonent bu tudd Samwil ci ñenn ñi ñenn ñi ñu ne Sam'un la tudd ku mel ne Qurtubi nee na Samwil la tudd ñu sàkk ci moom ne ko ñun de dañoo bëgg nga falal ñu benn buur benn njiit boo xam ne moom mooy jiitu ñu topp ci ginnaawam pour xeex pour kawel kàddu yàlla ci aaye bii la boroom xam-xam yi di wax ne jihaad mënta am lu dul jullit ñi am imaam buy joxe ndigal ib aslana malikan nuqaatil fi sabilillah maanaam xeex bi il faut am ku jiite di joxe ndigal kon tey booy xool aaya bi ak jullit ñi li ñuy dund mooy jihaad mënta nekk kan mooy joxe jihaad nañ ndigal nañ jihaad kan tey bu fekkoon ne xalifa général muridi moo joxe ndigal ne nañ jihaad xalifa général tijaani li tijaani di wax xalifa général tijaani joxe ndigal xalifa général laayeen yi ne lan xalifa général laayeen yi joxe ndigal xalifa général canaba ne lan xalifa général cana ba joxe ndigal xalifa général ñaseen nelan xalifa ibaadu yi nelan ku nekk bu la neexee nga nangu bu la neexee nga bañ parce que sa kilifa joxewul ndigal amma kilifa gi nga xam ne moo fi toogal lislaam bu joxee ndigal ku ko ku ko bàyyi am bàkkaar léegi nag loolu mooy suñu problème te pourtant loolu lu jaadu la lu war la parce que yonente alayhi salaatu salaam moo fi nekkoon nekk amir ñëpp yonent bi génn àdduna mi ngi ci néegu Aïcha suula guñ ko ñu fal keneen kooku bi mu demee bay faatu xam ne day dee ñu fal keneen léegi kay après la ñu musiba dal diine bi dem ba amatul ku ko jiite waaye yonent bi bi mu fi nekkee ak xulafa ur rashidin ñoom jamono bu nekk day am ku jiite diine bi ñoom ñu ne yonent boobu mbooloo moomu ñu ne seen yonent bu tudd Samwil ne ko il fallait que la budda nga falal ñu kenn koo xam ne moo nuy jiite yusawisuhum fi silmi wal harb muy defar seen mbir ci xeex ak jàmm muy atte mbir yi mu tudde ko Malik mu ne leen a li ngeen wax de lu baax la waaye bëri na nit ñi ba ñu nammee lu baax foog ko bëgg ko bu mbir mi demee ba ci egg ci cëppaandaw li ñëpp deltu ginnaaw loolu bëri na léeg nga dégg ko ne wallahi bu ma amee xaalis ñaanal leen ma rek loolu yàgg naa kaa dégg nekkoon naa fi ak ay nit ñoo xam dañ ma doon wax ne oustaz daf leen duwaa rek waaye bañ defee duwaa ba mbir yi ubbeeku kenn gisatu leen waxuma sax dañoo génn sunna ñenn ñi sax ñu ngi ci sunna waaye da nga leen dul gisati ñenn ñi moom génn nañ ci bu yàgg am na ñenn ñoo wax ñaanal la ñuy tukki rek incha allah leen ñaanal la ñuy tukki du changé ay numéro téléphone kon moo tax saxaaba yi bi ñu doon wax yonent bi yonent nañ jihaad yonent bi ne leen ñaan leen yàlla al afiya salullaha al afiya ndeysaan saxaaba yi daan nañ wax loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi naan leen déedéet bu leen mébét dajeeg seen noon bu leen di mébét di dajeeg seen noon ñaan leen yàlla rek yàlla defal leen jàmm moo gën ngeen di ñaan yàlla ne di ngeen di jihaati ndax jihaat du mbir mu sedd mbir mu metti la lu tax bakkan da cee aju moo tax ñii ba ñu waxee loolu mu ne leen mbaadu bis ñëw ngeen di wax lii ñu dem front ba yéen ñëpp ngeen daw ñu ne ko ñoom ñu ne ko ñu ne yonent bi ñun lan moo nu dal ba allahu subhanahu wa taala di ñu sant xeex ñu bañ a xeex te li tax ñun ñuy xeex sax waxuma sax mbiru yàlla waaye ñun suñu bopp dañ noo tooñ ndax ñun dañ noo génne suñuy kër génn ñu sunu dëkk nangu sunu alal def nu nangam ak nangam ak nangam kon ñun laa budd ñun danoo war a xeex waaye borom bi nee na keroog ba yàlla farataalee moom borom bi farataalee ci ñoom xeex tawallaw illa qalilan minhum genn wàll gi yëpp daw da ngay jàng tafsiru jalaalayni ñu naan ñu lay wax yenn saa yi nombre boo xam ne subhanallah ñu naan la fukki junni ñoo daw wala ñaar fukki junni nit ñoo daw wala fanweeri junni nit ñoo daw mbooloo bu ci fanweeri junni dawee dafa des ah ndeysaan illa qalilan minhum allah subhanahu wa taala nee na moom ku xam tooñkat yi la waaw moo tax julit war a moytandiku tooñ borom bi nee na wa sa yaalamu alladina zalamu aya munqalibun yanqalibun tooñkat yi xam naa leen fu nu dugg ëllëg naa leen lu xarti génne leen tooñ baaxul yàlla daf ko tere araamal ko moom ci boppam ci yàlla subhanahu wa taala dafa araamal tooñ ci boppam te moo ëpp ñëpp doole moo tax jullit war a bàyyi tooñ ñu koy jàng ci aaya yi seen yonent boobu tudd Samuel dajale na leen ne leen yàlla subhanahu wa taala tànnal na leen benn waay def ko ci yéen yonent bu tudd toolut xoolal nit ñi moo tax chaque jour doomu aadama yi dañoo doy waar moo tax yonent bi saa sallam njëlbeenu daawa mu tere saxaaba yi laaj yu bari laaj mu ne leen bu ma leen santee def leen ma leen tere bàyyi leen bàyyi leen laaj gu bari nit ñi moom yàlla def leen a natt ñii lan lañ waxoon sànq nan nu falal buur amir bu ñuy digal ñuy xeex ba leen yonent bi ne fal nan benn waaye bi tur taalut ñu ne ko moo kii num moo kii num ñuy jiite commencé di di diski ñoom ñoo ko waxoon ñu ne leen diw la ñii naan yelloowu ko ndax bokkul ci xeetu sàngam ñi ne yelloowu ko ndax amul jëmm sàngam ñi ne yelloowu ko ndax amul alal ñi ne yelloowu ko ndax amul xam-xam ñi ne yelloowu ko ndax démb la fi judd kaña la fi judd kaña la fi màgg kaña la fi jàng ñun ñu nekk ay baayam dëppi ngeen bëgg a ñëw def ko sunu imaam li am Sénégal tey ñoom ñoo ko doon laaj wax lañ leen lii la ñu indi problème nga jaru woon laaj ñoom dañu ne nañ leen tànnal tànn nañ leen leen lan la ñu waroon def samina waataana waaye ñu lànk yàlla subhanahu wa taala waa jooju yàlla defal ko ay xéewal màngal ko xam-xam yokku kàttanam daal di koy def nguur ay bu ñuy jeex borom bi subhanahu wa taala mu ngi xamal ne nguur ci loxoom la nekk yuuti mulkahu man yasha yàlla mooy jox nguuram koo neex loolu moom waa Sénégal war nañ koo xam am na fi ko Ablaye Wade moom war na jàngal nit ñi lu ne amoon na temps ñu xañ ko nguur yàlla jox ko nguur gi neex mu bugg cee jàpp yàlla foqarti ko jox ko keneen ñun ñëpp leeroon na ne Ablaye Wade PS bi mu fi nekkee xañoon nañ ko nguur gi waaye yàlla moo ko jox Mohamed ba affaire bi neexee mu bugg cee teg bakkanam ne du bàyyi nit ñi foqarti ko kon ci yàllaa ko moom soo jàngee instant bi ñu nekk année bii président yi ndeysaan dafa am benn seenu télévision boo xamante ne dañ ciy publicité benn loxo boo xamante ne portable yi dañoo ran écran portable yi président yi daanu yi ñoo ci nekk loxo bi ay carte drapeau adduna bi moo ci nekk waa ji day taalal benn baaraamam puus benn portable xam nga portable yi lu ñoo sësanti nii bu bi daanoo bi ci ginnaaw nu muy def bi ci kanam bu daanoo ci deuxième bi nu muy def te dañoo ran waa ji day puus bi ci kanam rek ñu wane benn président écran bi mu daanu ñu wane keneen ki mu daanu ñu wane keneen ki mu daanu ñu ñi daanu ci adduna bi yëpp ci ay président ñu ngi foofu loolu mooy ne nguur yàllaa ko moom nga gis ci nguur ku def ci nguur gi ay zaaru Ben Ali ay zaaru Moubarak 40 ans ñoo xam ne bu ñu doon génn ay xadafi ñoo xam ne bu ñu doon génn ci télé kenn yemul fay télé bi billaahi wallaahi taala amoon na ñoo xam ne bewoon nañ bew boo xam ne bu écran bu télé bi di tàkk pour ñu leen di wane dañuy wane asamaan si wane seen photo ci asamaan bi muy wàcc ñu koy wàcc ba mun a dagaj ci biir télé bi pour walla bëgg laa woon ne kii yàlla la waaw dañoo ne niir yi wala ci photo bi di ko wàcc di ko wàcc di ko wàcc di ko wàcc di ko wàcc di ko wàcc ba ci dëkk bi ñu doon ko ci télé bi nga def nga mel ne kii yàlla la ana ñi ñooñu tey ñii dee nañ ñii daw nañ ñii ñu ngi ci lalu hôpital di waaj a dee kon nguur yàllaa ko moom loolu yàlla daf ñu koy jàngal ci ay incha allah mbokk yi li mooy taxi yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكاً ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل أسيتم إن كتب عليكم القتال هل أسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً qaalu anna yakunu lahu almulku alayna wa nahnu ahaqu bilmulki min walam yu'ta sa'atan min almaal qaala inna allaha astafaahu alaykum wa zaadahu bastatan fi alilmi waljism wallahu yu'ti mulkahu man yashaa wallahu waasi'un aliim sadaqa allahu alazim yaqulu jalla wa ala fi muhkami tanzil borom bi nee na alam tara xanaa gisoo alam tara unzur wa taajab xoolal te waaru xoolal te yéemu loolu la alam tara di tekk xoolal xool goo xam ne lan la lay jural ak waar xoolal xool goo xam ne da nga ciy jëlee njàng xoolal xool goo xam ne boo ko xoolee dina am loo ci jëlee looy xool mu ne ilal mala ci benn mbooloo ashrafu nas soo déggee mala mooy ñi gën a tedd ci peuple ba groupe min ahlil xalli wal aqd ñi nga xam ne tey bu dëkk bi amee problème ñoom ñu indi solution ñi nga xam ne bu dëkk bi lëjee ñu lijjanti ko ñooñ ñooy mala ñooñ ñooy borom xel ya fa nekk borom pexe ya borom mën-mën ya nga xam ne mën nañ dara ci dëkk bi ñooñ nañ laan mala noonu la yàlla ne xoolal mbiru ñii mala min bani israil dañoo bokk ci kàngami banu israil banu israil xam ngeen ñooy ñan ñooy doomu yaqub yi ñoom ñooy xeetu israil lii nag xew na min baadi muusa ginnaaw yonent yàlla muusa alayhi salaam la ñu dajaloo gis ne am nañu ay jafe-jafe am nañu ay nattu yeneen buur yi ñu ngi leen di noggatu di jël seen alal ñu daal di ne seen yonent bi ñu bokkaloon jamono bu tudd Samwil ñu ne ko ibaas lana malikan is qaalu li nabiyin lahum ba ñu waxee seen yonent ibaas lana malikan falal ñu buur tànnal ñu amir bu ñu jiite amir bu ñu jiite nee na fii dalil lii aaya bi dalil la ala anna al jihad li ilaai kalimatillah la budda lahu min imamin tajmau alayhi kalimatu l umma wa ayuma jihadin yaxlu min imamin sharci yuqatilu taxta raayatiha fa aqibatuhu xusn nee na aaya bi dalil la buy won julli di ne amuñu droit xeex lu dul ñu am imam amuñu droit jihad lu dul ñu am imam bu ñu jiite waaye léegi nag bu nu amul imam bu ñu jiite nag lan mooy wax ji mooy ku nekk gàddu sa yat ku nekk gàddu sa pistolet ku nekk gàddu sa jaasi ku nekk gàddu sa arme ngay xeexee nu mu la neexee léeg-léeg ñu wan la ci dëkk yi ñu ne la ñii dañuy jihad tey fi ñu toll nii par exemple za Nigéria da ngay dégg ñu wax la fa benn xeet boo xamante ne nee nañ ay jullit lañ dañuy jihaat dafay attentat ci ay église ay marché ay nangam ñooñu tamit suba ñu ñëw def attentat ci ay jàkk maanaam gis nga loolu bu bëree pëccëxoo day bëri su ko defee noon yi dañ ciy profito te jullit yi ñoo ciy jëlee perte lu tax parce que zaaru dëkk yooyu jullit yi ñoo fa ëpp ñoom ñooy ëpp lu ñu dee xoola Irak tey soo gisee américains yi bu benn dëkk jullit amee problème muy intervenir di ñëw di indi ay bombam parce que xam na ne jullit yi rek kay dee misaal bi ma leen jox instant bi ñu nekk nii moom mooy Syrie xoolal Syrie xoolal Irak fi dëkk fi jullit yi ëpp suñu leen nee ngoxar njaay rek ñu gàddu seeni avion di bombardé parce que xoolal Libye parce que xam na ne ñoom seen yoon nekk ñoom dañu bëgg a wàññi jullit yi ci kaw parce que dañu jullit dañoo bari dañoo nar a occuper monde bi même gis nga dëkk yooyu di am problème du ñu gaaw a indi solution dañuy bàyyi waa ji fa nekk rey rey rey rey rey ba doyal ba dernière minute ñu rey ko xool Xadafi barki démb dañu xamee ne lu bëri dee na lu bëri yàqu na xoolal Syrie instant bi ñu toll chaque jour ay quarantaine de morts Syrie chaque jour chaque jour xoolal Irak xoolal Afghanistan xool leen Tchétchénie xool leen fii ci Afrique nu dëkk bi tuddati Somalie lu tax duñ ko réglé parce que xam nañ ne ay jullit dafa nekk mais yeneen dëkk yi yeneen dëkk yi nga xam ne yeneen ya fa nekk doo gis lii foofu am problème dañuy ñëw ci saase réglé ko parce que xam nañ ne ñi dul jullit ñoo fa nekk ci saase lañ koy réglé ci saase xool leen ko divaar réglé dañ ko bu yàgg parce que xam nañ ne jullit yi ëpp nu fa ñeneen ñee fa ëpp ça loolu mooy loolu moo tax jullit ñi war a yeewu bala ñu leen di nax di leen dugal ci ay pièces yenn saa yi ñu xam ne jihaad du kenn rek du benn groupe du ay nit wala benn waay mooy toog rek daan ne Sénégal gi dañoo war a jihaad commencé jël ay jaasi wala ay bomb di di déedéet imaam moo lii de dalil la moo tax mu ne leen lii dalil ib aslana malik mu ne lii day wane ne dañoo war a am imaam boo xam ne sunu kàddu day dajaloo ci moom mu ne wa ayuma jihaad bépp jihaad boo xam ne yaxlu min imam shar'i dafa dañoo dem noonu sans am imam bu leen jiite ci sharia nee na jihaad boobu xam nga fu muy mujj a nekk perte jihaad boobu ci musiba lay mujj nekk musiba lay mujj a nekk mooy li ñu doon bañ lu ko gën a dangereux mooy am par exemple événement 11 septembre ñi ko defoon dañ doon wàññi doole Amérique mais événement 11 septembre après ñaata jullit lañ ci rey ñaata lañ ci yàq ci dëkk jullit yi kenn xamul nu mu toll. suñ jàngee usul boroom xam-xam yi dañuy wax ne boo ñëwee ci kër nga fekk ñuy tëgg ndën ay bool maanaam bu doon ceet la ñuy tëgg bool. ñu xam ne boo leen teree bool bi dañu uti sabar bàyyi ñu tëgg bool bi loolu mooy loolu la usul di jàngale bu dee lu bon moo fi nekk lii yëpp dafa bon te lu bon li il faut ñu def ci dara ñu ne nañ xool bi gën a ndaw mu la tegaloon cigarette tegal la poon tegal la yamba tegal la héroïne tegal la tegal la ñu ne yii laal ci benn charia ne la ban ngay jël jëlal cigarette ndax moo gën a ndaw moo gën a ndaw bu dee yu baax lañ la tegal nag bi gën ngay jël bi gën a baax wala li waa ji ne bu gën bu gën a gën bu gën a gën a gën boobu ngay jël looloo tax nañ bàyyi xel bu baax a baax ne islaam du nit ñi toog nii rek jàpp ne benn seen mbir ci benn intérêt la nekk rek ñu daal di def ifta commencé déedéet dañoo war a am imam dafa war a am ay cause beneen bi mooy dañoo war a xool lii ñu bëgg a dugg suñ ci duggee fan lay mujjee ak ñun ak ban lislaam lu mu ci am ci ndam ak jullit ñi luñ ci am ci perte yonent bi saa salaam nangu na ay mbir yoo xam ne keroog bi mu koy nangu ñi ko fekk woon ci saxaaba yi dañoo lànk keroog bi Suhayli ñëwee ñuy signé pacte Hudaybiya Suhayli ñëw ne bismillah nañ bind nañ bind nañ bind accord yi yonent bi ne bismillah nañ bind ñu bind bismillahi rahmani rahim mu ne waa ji ne ko de léegi de dindi leen gëmuñu yàlla bay bind bismillah dindil dindil ba mu set Ali ne man sama loxo du bind bismillah ma koy dindi yonent bi ne ko fu mu nekk mu ne mi ngi nii fii la ali yonent bi daal adna ko fan cagal sama teg ci sama baaraam ali daal di jàpp baaraam yonent bi teg yonent fomp lu ñu bind mu ne bindal min muhammad rasulillah mu ne ko moo ma gëmoon ne rasulullah la dinaa ñëw fii di signé ak yow dindil rasulullah ba mu set ali na man du ma bind rasul sama loxo bind rasulullah di ko dim du dindi du ma ko def dindiwuma ko xoolal yonent rek ak ali yonent ne ko ali rasulullah gi fu mu nekk mu ne mi ngi nii mu ne tegal sama loxo mu teg mu fomb mu ne lu ñuy bind mu ne bindal muhammad ibnu abdallah mu ñu gëmoon ne yonante nga duñ teg di xeex ak yow xoolal yooyu yonante bi nangu tey jii ñun est ce que ñun nan ko nangu saaba yu fekke woon yonent bi nangu loolu lan lañ wax tey ñaar yooyu ñoo gën a re- ñoo gën a tane de beneen troisième bi dañu ne jullit bu jóge fii ñëw ci ñun perte ngeen ko ñun ku jóge fee ñëw ci yéen dañ koy dellu si xëy na ngeen dof yonent bi ne bindal ali yi bindal parce que yonent bi xam ne fii ku fi ñëw dootoo dellu xam na ko ku bàyyi fee ba ñëw fii moo tax jullit yi war nañ leen defar ba nga xam ñii nga am ñooy ñan su boobaa lu ne mën nga cee dugg gis nga waaye bu fekkee xelu kese la ñuy demee ñun dañuy jàpp ne lii di ah kii day daaneel lislaam xoolal li mu def fekk bismillahi mu dindi ko rasulillahi mu dindi ko ki mushrik loo gars yi daal lay takkal sagar bu xonq foo romb koo nuyu du la fay fekk gis nga foog ñu yaatal dënn yi xam ne lislaam dafa am jamono yoo xam ne daf ci toll bu ñu gaaw di atte doomu aadama yi sunu borom subhanahu wa taala mu ne bi gaa yi ne falal nu benn yonent benn buur ib aslana malikan lu ngeen koy dee mooy munuy digal nu qaatil fi sabilillah munuy digal di ñu wan di ñu orienté jiitenu pour ñu xeex pour kawel kàddu yàlla li ñu wax baax na de dama moo tax ñu bëgg li mooy pour nee nañ ñoom nu qaatil fi sabilillah pour ñu xeex ci yoonu yàlla qaala hal asitum in kutiba alaykum alqital ah a yéen yaakaar ngeen ndax foog ngeen wóolu ngeen ni buñ leen falalee waa ji pour ngeen xeex di ngeen xeex in kutiba aleykum bu ñu farataale ci yéen alqitaalu xeex ndax di ngeen xeex allah tuqaatilu ndax di ngeen xeex ndeysaan moo tax chaque jour nit ñi tàngooru yaram dina leen jàpp comme am na benn jour ci benn gox bu ñu jege ay xale yu góor yu fa doon jullee ci benn jàkk jékki-jékki rek daal ne dañuy jihaad suba ku ñëw na nga indaale sa jaasi gars yi ñëw daal di armé wu tax benn waay ne leen waa léegi damay laaj da ngeen bëgg a jihaad ñu ne waa mu ne ñan ngeen di xeexal gars yi na ko yéeféer yi mu ne est-ce que message bi egg na ci ñoom ba pare waar ngeen leen ba ñu bañ woote ngeen woote bi egg na ci ñoom gaa yi ne ah ku nekk ne ah man de musuma faa dem mu ne kon amu leen droit xeex ak ñoom maanaa xeex bala muy am day fekk message bi yegg fa ba ñu bañ mais xëy rek càddu sa yet loolu amul fenn ñuy woote ba pare ba ñu lànk ba mu wóor ñu ni ñu ne ñii dañoo lànk diine lànk ne duñu joxe impôt xeex ak ñoom mu ngoog borom bi ne leen qaalu ñu ne wa maa lanaa lu nu dal allaa nu qaatila ñun du nu xeex fi sabilillahi pour kawel kàddu yàlla ñun lan moo nu dal ñun ñoo def laaj bi ñun ñoo def demande bi ñoo sàkku lii nan nu faralal buur nan ñu faralal njiit bu ñu jiite pour nu xeex pour kawel kàddu yàlla comme ñun ñoo ko sàkku nag lan moo nu dal ba waa jooju buñ ko falee ñun du nu xeex ci ginnaawam te ñun ku nekk gis na lu nu dal waqad uxrij naa génne nañu min diyaari naa sunu kër yi dañ ñoo génne loolu bokk na ci cause bu war a tax ñun ñu xeex même bu doon sax pour kawel kàddu yàlla kuñ génne sa kër war ngaa xeex pour dellu waa ab naa inaa ak sunuy doom nangu nanu leen ñoom ñëpp dugal leen ci lu kenn xamul rey sunu doom ngay gis yu yahud yi bu ñu duggee ci dëkk dañuy rey góor ñi violer jigéen ñi xale yu ndaw yu góor yi ñu def leen ay handicapé ñi ñu toj seen benn bët ñi ñu dagg seen loxo ñi ñu dagg seen tànk pour bu nu màggee du ñu résister góor ñi dëgër vingt ans jëm kaw yëpp dañuy rey xale yu ndaw yi ñu def leen ay handicapé xale yu jigéen yi ñu violer loolu mooy yëfu yahud ak yëfu yéefar loolu la ñuy def partout dans le monde rawatina Palestine borom bi nee na ñii li ñu wax lépp falamma kutiba alayhim alqitaalu ba yàlla farataalee ci ñoom xare xeex jihaad te wallaw ñu daw illa qalilan lu dul lu néew minhum ci ñoom ñépp a daw yenn wàll gi yépp dañoo wane ginnaaw daw allahu akbar ndeysaan allahu akbar lii ba ñu nee ñoom dañ leen génne seen kër yi uxrij naa génne nañu min diyaarina wa abnaina wa zalika mu ne annal aduw naka noon bi wa hum al babiliyun ñooñ ngeen dégg ñu dëkkoon Babylone te ngeen naan Bab Babil al babiliyun lamma gazaw Palestine ba ñu ñëwee jël Palestine occupé ko ñu tàmbali def lii di def yëfu kàccoor ci banu Israil jàpp jigéen ñi di violer di njaaloo ak ñoom lekk riba lakk téere yi rey xale yu góor yi ci nag jamono jooju la waa banu Israil sàkku ci seen yonent bu tudd Samwil pour mu falal leen benn njiit benn buur bu leen jiite pour ñu xeex ci yoonu yàlla waaye mbokk yi borom bi subhaanahu wa taala mu ngi nuy nettali ne keroog ba ñu leen sante xeex ne leen da ngeen a war a jihaad li xew mooy te wallaw wane nañ ginnaaw daw nañ illa qalilan lu dul lu néew minhum ci ñoom waaw moo tax sahaaba yi bañ ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nañu xeex yonent bi ne ñaan leen yàlla tawfiq laa tamannaw liqa al adu bu leen mébét dajeex dajeek noon bi wasalullah al aafiya ñaan leen yàlla jàmm ida laqitumuhum fasbutu bis bu leen yàlla nattoo nag ba xeex bi taxaw ngeen gàddu seeni jaasi jàkkaarloog ñoom riposte leen sax leen bu kenn daw bu kenn deltu ginnaaw waaye nag bu leen mébét loolu yonent bi daf ko tere xeer hadis bi mu ne naha rasulillahi saa sallam ummatahu ani tamanni li qitaalil adu yonent bi dafa tere xeet wi ñuy ñaan pour dajeeg noon bi parce que du jàmm xeex dafa metti waaw mu ngoog ñu bari mën nañ cee génn ci lislaam ndax ngay xool gis say mbokk ñii seen loxo yi dagg ñii seen bopp yi naaw ah ñii ñu jamate leen ba ñu dee dee ñu doy waar loolu mën naa delloo nit ñi ginnaaw kon ñaan leen yàlla jàmm borom bi nee na wallahu yàlla alimun ku xam la bi zalimina tooñkat yi yàlla dafa xam tooñkat yi tooñ baaxul waykat bi nee na laa taslimanna ida ma kunta muqtadiran fa zulmu taatika uqbaahu binnadami bul tooñ de loo am doole am doole bul tooñ ndax tooñ mujj gi résultat bi fa muy mujjee rëccu rek tanaamu aynaak wal mazlumi muntabihun da ngay dem tooñ dem tëdd di nelaw ki nga tooñ dem jàpp lal si jaadaam bàyyi ba trois heures du matin mu jàkkaarloog borom bi subhanahu wa taala te yàlla ñetti ñetti ñaan yàlla du ko delloo ñetti ñaan yàlla du ko delloo bu njëkk bi ñaanu ñaanu wayjur yàlla du ko delloo ñaareel bi ñaanu ku woor baru ngoon muy dog yàlla du delloo ñaan ñett ku ñu tooñ ku ñu tooñ gu ñaanee rek ñaan gi day départ jëm ci yàlla yàlla na ci sama màggaay kii dinaa dinaa nangu àqam delloo ko duwaawul mazlum laysa baynahu wa bayna allahi hijab ñaanu ku ñu tooñ digganteem ak yàlla amul amul frontière bu ñaanee rek direct lay def direct ci yàlla moo tax tooñ baaxu yàlla ne wallahu yàlla alimun xam na bi zalimina tooñkat yi yonent bi nee na iyaakum wa zulm mooy tund ku leen tooñ fa inna zulma zulumaatun yowmal qiyaama yonent bi nee na moytu leen tooñ ndax tooñ lëndëm la yowmal qiyaama tooñ baaxul wa qaala lahum nabiyuhum seen yonent nee na leen inna allaha qad baasa lakum taaluuta malika yàlla day moo leen tànnal benn waay bu juddoo ci xeet wi màgge fi yaroo fi dëkk fi ngeen xam ay way juram ndeyam ak baayam waa jaa ngi tudd taaluut yàlla tànn na ko ci yéen mu nekk buur ñoom ñoo ko sàkk woon ci seen yonant ñoo demoon ci yonant ba mu tudd Samuel ñu ne ko ib aslana malikan nuqaatil fi sabilillah léegi nag nee na leen inna allaha qad baasa lakum taaluuta malikan yàlla tànnal na leen waa ji tudd taalut mu nekk buur lan lañ waroon ñu ne samina wataana waaye banu israil bu leen fàtte ñëwoon nañ ci Moussa ne ko leen ah dañoo rey kenn ci sunuy nit ñu bëgg kam xam kan moo ko rey mu ne leen mu ne leen mu ne leen inna laa yaamurukum an tasbahu baqara yàlla nee na ngeen dem rey nag au lieu ñu dem rey nag ñu ne lan ban nag gis nga de ban nag mu tontu nag bu mas nangam ak nangam ak nangam ñu ne ko gën ñoo leeralal ndax in nu inna al baqarata shaabaha alayna wa inna saa yu leen laajee rek ñu indi laaj saa yu leen tontoo rek ñu indi laaj saa yi leen tontoo rek ñu indi laaj ibnu abbas nee na lamma saddu saddadallah ba ñu taralee yàlla taral mbir bi ci ñoom wala tey duñ defaat falal ñu buur ñu falal leen buur ñu ne diw la qaalu ñu ne anna yakunu lahul mulku alayna waay yow waay tum kooku naka lay nekkee buur suñu kaw anna yakunu lahul mulku alayna naka démb la fi judd démb la fi màgg kaña la fi juddu kaña la fi jàng kaña la fi màgg ñetti kaña yooyu kañ amul lii amul laa ci xeet bee la bokk ci moo moo moo yàq tey adduna bi moo yàq tey surtout dëkk mu mel ne Sénégal waaw nangam yàlla ne lii la ñu ne du loolu yamuñ ci ne anna yakunu lahul mulku alayna naka lay faloo sunu kaw naka lay nekkee buur sunu kaw waaye wa nahnu ñun ahaqu bil mulki minhu ñun ñii doon wax mbir mi ñun kilifa yi ñun ñoo gën a yey ci mbir mi ak moom pourquoi ndax ñun ñu ñoo am nangam pourquoi ñun ñoo sant nangam pourquoi ñun ñoo xam nangam pourquoi ñun ñoo mën nangam lu tax ñun ñoo bokk ci xeetu nangam léeg-léeg nga dem ci dëkk ñu ne la fii ku sant nangam du jiite jumaa ji sant nangam rek ñoo fiy jiite léeg-léeg nga dem ci dëkk ñu ne fii xilaafa gi ku sant nangam rek moo fi toog sant nangam ku fi santul noonu du fi toog léeg-léeg nga dem ci dëkk ñu ne dëkk bi ku sant nangam kenn du ko suul ci armeel yi ci guy gi lañ koy dugal demoon nañ ci benn dëkk xuruj ñu fekk dëkk bi am ñetti armeel armeelu sang yi ak armeelu géwél yi ak armeel yi dul jullit géwél yi ci guy lañ leen di dugal guy kenn du leen suul ci armeel yi ci guy guy guy gu am pax mu rëy ñu dugg ci lañ leen di dugal kenn du leen suul benn waay moo ko dindi papaam gaañu mu nekk Europe mu woo leen téléphone sama papa ko dugal ci guy gi moo ñëwee tëj la gaa yi suuf ko ci suulu guy gi léegi ku dee rek ñu suul la ci suufu guy gi kenn dootul dugal kenn ci biir foofu waaw ndeysaan ba léegi loolu nga am Sénégal de am na ñoo xam ne kenn du leen suul ci ay armeel ko tabee leen leen di suul ci ay jullit lan de waaye dañu ne nangam lañ sant ci xeetu sàngam lañ bokk am na ñoo xam ne ba léegi ci takk du ñu takk jigéenu nangam am na ñoo xam ne ba léegi ci jigéen ñi dañoo am jëkkëru nangam waaw ba léegi lii mu ngi fi an naa yeg ah waaw kii nee na Dakar am na armeel yoo xam ne lébu yi rek la ñuy suul foofu lébu ku dul lébu bokkoo lébu rek da ngeen de mu ngoog an na yahu yakunu lahul mulku alayna naka lay nekk buur ci ñun wa nahnu ñun nahnu gis ngeen baat bi nu ñun koo dégg mu koy wax rek bu yeboo nga sori ko xatta ndeysaan boroom xam-xam yi dañuy tere nit naan nahnu ngay wax ci alxam-xam ba jàng naan ñun man antum yeneen ñan ñun jullit boo dégg mu naan nun moytu ñun ñun ana moytul ñooñu wa nahnu ñun a xaqu ñoo gën a yey bil mulki ci nguur gi min hu ci waa ji ñu tànn ah yonent ko tànn de xoolal ku toll na yonent moo ko tànn ko këy du juum ko xam ngeen ne message la jot yàlla moo ko ne diw la ndeysaan ñu ne waaye déedéet léegi nag comme ñoom wax nañ ne waa ji yeyoowu ko ñu ngi joxe seen critère lu tax waa ji yeyoowu ko bu njëkk mooy walam yuta saatan min al maali ñu ne yàlla joxu ko alal ju bari amul alal ju ne gàññ walam yuta joxuñu ko saatan yaatuwaay minal maali ci alal amul alal ju bari kon ñoom foofu ku fa war a nekk dara il faut nga am alal looloo xew Sénégal de pour ñu may la jabar il faut nga am alal boo amee alal foo yegg si ñu ne bismillah ñu toog ñu ne leen wàcc leen balaa ngeen balaa kenn wax ñu ne kooku na wax ba pare waaw yoo leen doon déglu yoo leen doon xaar tey ñuy tudd ñëpp ñëw ñu ne ñu ne dinañ xaar turandoo bi ndax moo jënd kuy mi moo ko jënd nañ ko xaar kat yaa ngi toog di ko xaar waaw est-ce que de ñëpp ñëw ñu ne déet ki jënd kuy mi ñëwagul xaar leen ko xaar leen ko gis nga de alal walam yu a walam yuta saatan min al maali amul alal qaala yonent ba ne leen inna allaha yàlla istafaahu moo ko tànn aleykum ci yéen yàlla ko tànn ku yàlla tànn nga yaakaar naa war naa doy wala ku yàlla tànn ne kii la kooku war naa doy nit ñi wala yàlla yónni yonentam yonentam ba ne kii la kooku yàlla moo ko tànn inna allaha naka yàlla istafaahu moo ko tànn aleykum ci yéen pour mu jiite leen yàlla ba mu ko tànnee ndeysaan gaa yi bañ ndax joxe ay lu ñu yaakaar ne tey mooy critère xam nga tey ci àddina bi rawatina réew mu mel ne Séné Sénégal li fii critère pour nit ku baax mooy am xaalis am alal am ay étage am ay 4x4 am ay 8x8 am am am am am ñu ne noo diw la tey tey Sénégal yooyu mooy critères yu ñuy tànnee waaw loolu mooy tànnukaay yi nattukaay yi nattukaay yi nit ñi ak nattukaay yi yàlla du benn fi mu nekk nii waa ji nga xam ne du dem jàkk du julli du woor du jaamu yàlla waaye koñ bi ndeysaan léeg-léeg mu joxe fi ay kilo mburu léeg-léeg mu joxe ay paquet suukar léeg-léeg léeg-léeg léeg-léeg lu nit ñi di wax lu nit ñi di wax ku baax la fekk cri fekk criminel la góor jigéen la ku baax la bu koy xam nga ne baaxul góor jigéen nu muy baaxee ah wala waa ji barki démb li mu wax dégg ngeen ko de Sénégal war nañu ko defaraat de tey jii kilifa yi la yàlla di weer parce que genn waa gépp ay góor jigéen lañ ñu yàlla jubal réew moo xam ne nag ña ko jiite ay góor jigéen lañ ak ay franc-maçon réew moom du tab du baax ma te loolu mooy Sénégal tey saa ñu la limalee juróomi nit ci njiit juróomi nit ñett ñi kenn ki góor jigéen la ñaar ñi ay franc-maçon lañ wala réew mi du baax dañuy sonn rek ndax loolu tabax ñu yàq ko parce que franc-maçonnerie ak góor jigéen dafa ñëw pour détruire jikko jikko lañ ñëw pour yàq dund àdduna sans yàlla loolu mooy ngóor jigéen ak franc-maçonnerie dund sans jë bu ci yàlla am affaire bu ci diine dugal loxo ñoom nañ jël àdduna bi dugal ko seen poos loolu mooy mooy mooy seen dund moo tax gis nga ana changement bi anum am ngeen changement changement am na amagul de est-ce que dina am nasallah tawfiq mu ne ba ñu waxee loolu yàlla subhanahu wa taala wa zaadahu bastatan fil ilmi yàlla daal di defal waa ji doole yokkal ko doole wal jism fil ilmi xam-xam yàlla may waa ji xam-xam wal jism yàlla may ko doole may ko kattan yàlla da ko njoolal moom waa ji ba mu gën a njool ay noo ay ay ay noonam yàlla may ko xam-xam ba mu nekk expert xam technique gu guerre ñoom ñu ngi doon wax wàllu alal waaye xoolal waa ji bi ko yàlla di may lan la ko jox wa zaadahu bastatan fil ilmi yàlla li mu ko yokkal ñoom ñu ngi wax wàllu alal yàlla yokkal waa ji xam-xam ak doole kattan waaye lañ doon wax yàlla indiwu ko dañu musalaat yoon ci yàlla aadam ne ko yàlla tànn loola la ñett benn ngay jël yàlla tànn loola la xam-xam tànn loola alal tànn loola nguur benn ngay jël mun a jël naa xam-xam nguur ne man munumaa ànd ak buur bu amul xam-xam alal ne munumaa ànd ak nit ku amul xam-xam ñett yi daal di koy fekki moo tax xam-xam mooy indi ñaar yee koo gis ñuy fal nit ñi yaakaar nañ ci yow xam-xam nit ñi yaakaar nañ ci yow xam-xam bépp borom alal bu amul xam-xam alal ji toskare parce que alal xam-xam moo koy moo koy wattu moo koy gérer moo tax koo fi gis mu ubbi société ut na comptable kooku lu mu koy dee mooy saytu mbir yi comptable boobu lan lay lan la lan la lan la jàng dafa am xam dafa am xaalis pour mu ne comptable xam-xam xam-xam mooy saytu alal moo tax waa ji lan la ko yàlla may mooy xam-xam ak kattan jism mu ne wallaahu yàlla yuti mulkahu mooy jox nguuram man yashaa ku ko neex jàngeen aaya yu bëri ci alquran qulillahumma maalikal mulk tuutil mulk man tasha nguur ci loxo yàlla la nekk yàlla moo koy jox ko neex nguur nekk ci loxo nit ci loxo yàlla la nekk léeg-léeg borom bi subhanahu wa taala fal koo xamante ne kenn foog ko woon est-ce que yaakaaroon ngeen tey jii frère musulman yi dinañ falu Égypte yaakaaroon ngeen ko 40 ans lu ne lañ leen def am na ci ñoo xam ne seeni soxna sax jël nañ ay xaj xaj yi seey ak ñoom am nañ ñoo xam ne ci ay bërigo ndox lañ leen doon fanaan law liñ ci rey kenn xamul nu mu toll am na ñoo xam ne ba léegi seen bàmmeel yi kenn xamul fu mu nekk loo xalaat métit ci àddina bi def nañ leen ko tëj façon tëj bu nekk benn kenn ci boroom xam-xam yi damay waxtaan ak moom ndeysaan mu ne ma ci Égypte ñun amoon na waxtu woo xamante ne jamono boo xam ne ku nekk ci ñun dañ la ne utal sac bu ndaw boo xam dañ ciy def broche def ci saabu def ci sa pat def ci serviette def ci sa jàmp ak ay dàllu carax nga wékk sa buntul kër loolu mooy lan mooy guddi walla bëccëg dafa tàng wala dafa sedd minute bu nekk yow mun ngaa fanaani kaso te booy dem loolu moom yóbbaale ko ni ñu toll ñoom ñëpp ni ñu bëree ku nekk ut loolu denc ko minute bu nekk fu nekk place bu nekk waxtu wu nekk mën lañ laa jël nga dem kaso mais tey yàlla jox na leen nguur gi parce que dëgg mooy dëgg wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasb dëgg mooy dëgg day yàgg day metti rek waaye dëgg ak fen ñuy bëre dëgg day samp rek kañ la fi fan di sax mooy bis bu dëgg dawee comme tey ni dëgg dawee Sénégal ñoo fi ëpp waaye amuñu njëriñ suñ ne ñoo fi ëpp lan laa bëgg a wax mooy ñun jullit yi ñoo fi ëpp mais amul njëriñ wala am na njëriñ amul njëriñ amuñu benn njëriñ suñ diina ñoruñu keroog 23 lan juin ah 23 juin la woon bi gars yi naan xaw ma ne touche pas mon à ma lan constitution du loolu la ñaata nit ñoo dee ñaata deret moo tuuru gars yi di xeex ngir constitution alaysa kazalik ah ay nit yu ndaw di xeex pour constitution ana jullit yi est-ce que ñun jóg nañ ne bu kenn laal suñu diine ñun diine ñoruñu ñun diine moonu ñorul ba léegi diine moonu ñorul wax jee bari rek mais Sénégal diine ñoru leen wallahi alazim billahi wallahi taalahi diine ñoruñu lu nekk danañ ko yëngatu ba mu des diine lu nekk danañ ci yëngatu ba mu des diine dina jaraluñ dara bu ma nee diine nag waxuma li am fii de folklore yi caaxaan yi ngeen di gis sabar yi ak ndënd yeeg yuuxu yeeg karaj karaj yeeg xeesal yeeg karaj karaj waxuma lii sharia laa wax diine sharia li yàlla wax ak yonent bi loolu moo tax ma naan diine loolu amul fii loolu ñoruñu loolu ñoruñu faalewuñ ko sax nag ndax koo dégg fi muy diingat loolu lay diingat ah ay sharia mooy lan ah ay muuraay mooy lan ay bañ a lox ju joxo lox jigéen loolu mooy lan yu tardé yooyu ah ah yooyu mbiru sharia la ñun am nañu ay baatin ay baatin yoo xamante ne yooyu ngay dégg ñuy wax da nan yàlla jubal wallaahu yàlla yuuti mooy jox mulkahu nguuram man yasha ku ko neex li leer na yàlla moo yor nguur qul illahuma malikal mulk tuutil mulk man tasha mooy jox nguur ku ko neex nguur ci loxo yàlla la nekk xoolal ci Égypte waa ji nekk président du moom moo war a nekk candidat de ki ki ki frère musulman yi indi woon pour mu nekk président dañ koo bañ justice ba dafa bañ na waa ji du nekk président ñu indi Morsi mu nekk président kon kay gis nga yàlla kii moo waroon nekk war a mu nekk xoola ki ñu faloon ñoom ñëpp ñu d'accord ne kii la bi ñu koy yóbbalee dugal ay dossier am dañoo registré dossier yi ne kii mënul nekk président dañu indi keneen ñu indi kii mu nekk président kon kii la yàlla waxoon moo koy nekk nguur gi ci loxo yàlla la nekk bu yàlla ne nit day nekk président day nekk buur kenn mënu ci dara da koy nekk cooway bari mais daf koy nekk bu yàlla follee président boobu it ku yebu xam ne folleeku na boo ci bëggee jàpp day day metti rek waaye day folleeku waaw am na président bu folleeku ba pare naa man xaw ma yàlla nu mu nangoo sama nguur gi nii xaw ma fu ma jaar inna lillahi wa inna ilayhi waaw loolu la wax kat man xaw ma sama nguur gi nu ko yàlla foqartee ni mu la ko joxee woon la ko foqartee du moo ko moom xanaa xam nga buur yëpp dañuy dee ba mu des yàlla bis ñëw mu ne aynal muluk ana buur yi ñëpp na teg laa mujiba illa allah dong mooy tontu buur yëpp bisa ngi ñëw ñu ne seen bàmmeel a ngi nii ba mu des benn buur muy borom asamaan ak suuf ku dul moom rek bisa ngi ñëw ñu ne bàmmeelam a ngi nii ba mu des jalla jalaaluhu allahu akbar sunu borom ne wallahu yàlla waasiun ku yaatu la alimun aji xam la waasi ku yaatu la waaw yàlla yaatu na de ñëpp la ëmb ñëpp a xëcc moom da ngeen buñ nee yàlla dafa yaatu ëmb na ñëpp ñu jàpp ne nit ñi kese la déedéet duggal géej demal ci àll bi alamul xaywaanaat alamul bahr alamul jinn alamul malaika alamul arwaax alamul ins monde yooyu yëpp yàlla moo yaatu ëmb leen ñëpp ñëpp ay mbindeefam lañ waasi ndeysaan seetaan leen documentaire yi monde bu ñu la woon nga jële ci kéemtaan xeet wuñ la woon nga jële ci kéemtaan luñ la woon te loolu lu tuuti la ci la la yàlla xamal moo tax mu ne yaalamuna zahiran min alxayaati dunia nit ñi tuuti wa ma utitum min al ilmi waaye yàlla alim yàlla mooy borom xam-xam bu mag moo tax lépp lu mu def ci xam-xam la ko teg yàlla subhanahu wa taala lépp lu mu def xam-xam ci xam-xam la lu tax ndax mooy borom xam-xam bi ku am xam-xam moo la may moo tax moom mbiram yëpp tegu ci xam-xam aaya yu bëri ci quraan borom bi subhanahu wa taala bu waxee ci bind bu aaya di jeex alim la koy jeexee ci montagne yi alim asamaan alim lépp alim lépp yàlla moo ko xam subhanahu wa taala wax ji fu muy teere mu ne wallahu yaalamu yàlla rek a xam wa antum yéen nii ñu ne mu ne laa taalamuuna xamu leen lu tax mu ne wa maa utitum min al ilmi illa qalilan lépp lu ngeen su ngeen fi indi woon benn expert ñu naan kii yàlla nee na tuuti la xam xamul dara tuuti la xam yaa ngi demal ci ñi def médecine dangay gis benn waaye boo xamante ne juróomi at nopp dong la jàng boo ko nee bët mu ne la non jàllal ci lan xaw ma of lan waaw nga gis ko borom bët bi borom bëñ ñëw rang ba yegg mu ne ko lan la mu ne ko bëñ mu ne xanaa gisoo liñ bind ci bunt bi fii kenn di faj bëñ bët lañ fi faj dafa fële mu génn xamul dara ci bëñ ndeysaan xoolal juróomi at yooyu mu jàng yëpp bëñ rek lay faj bëñ kese bëñ te yëpp yàlla nga ko dajale ci nit keneen gi moom der ndeysaan der der ngay rang ba yegg lan la sama biir réew mi yow kan moo la tegtal fii nga yaa dañ ma ne fii dañuy faj mu ne lan la ñuy faj fii der kese lañ fi faj der sa der keneen moom deret deret ndeysaan ndeysaan sunu boroom sunu boroom mooy lépp moo xam lépp mbokk yi incha allah fii la ñuy yem ba mardi waaye du ñu tëj tafsir bi lu dul danañ sàkku ci yéen incha allah alxamis bu ngeen amee jot ngeen ñëw fii jàppale ni ñu préparé jouru tabaski bi pour defar place bi defar mosquée bi li ko wër lépp defar ko ba mu rafet incha allah pour préparer fête bi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu